la nga xamante ne ci nga koy woo kon loolu la askanu Ziguinchor defaloon kii di Ousmane Sonko gis ngeen ko noonu fii ci Kolda itam wax dëgg yàlla ko qu'on puisse dire moo di une forte mobilisation moo daal di accueillir kii di Ousmane Sonko fii ci Kolda gis ngeen ko noonu xam naa dinañ si agsi ci kanam lii di feu yi nga xamante ne moom ci kanam li nga xamante ne moom moo di jeunesse bi nga xamante ne moo fa daldi di teew wala moo daldi teew fii ci Kolda gis ngeen pétard yi noonu comme ni ngeen ko constaté dinañ si agsi ci kanam Les images vont vous démontrer tout ça. Les images vont vous accompagner dans cette belle ambiance. Voilà kon comme ni ngeen ko gisee kon mu ngi noonu en tout ca c'est exceptionnel cette mobilisation en tout cas c'est tellement beau tout ce monde yow yaa yore organisation non non euh, communication capitaine Touré tey ñu gis entrée wu Bakel déjà la population est tout debout wallaay dañoo kontaan mbégte ak contentement rek on est très heureux d'accueillir le président Ousmane Sonko fii ci Kolda donc fu mu nee nii lu ñuy wax Koldois rek ku dem voter massivement pour la liste Pastef Gamem ñu am plus de 150 fii ci Sénégal ñu mën a continuer projet bi si jàmm ak salaam waaw vraiment kontaan nañ trop. ñu gis peut-être yi nekk fii yu bëri. <laughs> bon leader yi dañoo woote man ko benn rek pour am benn résultat bu bu bu bu bu bu gën a bu gën a kawe pour mën a battre vraiment pour ñu mën a mën a mën a mener projet bi correctement. voilà kon mbokk yi fi nga xamante ne moom moo di fii ci Kolda gis ngeen li nga xamante ne moom di askan wi mi nga xamante ne noonee la ñu daal di teeroo oh, lii di cortège bi li nga xamante ne noonee lañu ñu daal di teeroo kii di Ousmane Sonko mi nga xamante moom moo di askan wi gis ngeen ko jafe-jafe la sax. Sonko la ñuy dundee Sonko la ñuy noonee. ñu Sonko la ñuy topp Sonko la ñuy topp barki seen na Mohamed ah ñu ay bay ban mécanicien Sonko la ñu bu waay ñu dee dañuy dee Sonko kese Voilà, voilà cette belle ambiance qui accueille ce beau cortège également. boyo oh, mole oh, eh, oh, ah, voilà cette belle chanson voilà cette belle harmonie des militants et sympathisants de Pastef ici à Kolda. Voilà ce beau monde qui accueille Ousmane Sonko, le président du parti Pastef ici à Kolda. Comme ni ngeen ko constaté noonu, déjà ici la rue est pleine de monde. Toute la route est occupée par ñi nga xamante ne ñoom ñoo di les militants et sympathisants. fii si Kolda déjà ça fait le plein déjà mbedd mi tali bi fees na te yeggaguñu foofu nga xamante ne moom moo di foofu ca stade ba yéen a ko gisal noonu. seen bopp ci image yi yéen a ko constatel noonu seen bopp ci image yi fii askan wi génn nañu en masse fii askan wi ñëw nañu gàttandu ki nga xamante ne moom moo di seur leader fii askan wi noppi nañu déjà ngir dalal ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko fii askan wi fa yéene nañ ko gunge ba mu yegg foofu nga xamante ne moom moo di ca stade ba foofee nga xamante ne foofu la fa yéene def un grand meeting un grand rassemblement ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di ses militants et sympathisants yéen a ko gisal noonu seen bopp kon. En tout cas, la jeunesse est mobilisée. En tout cas, la population de Kolda est mobilisée. En tout cas, c'est beau tout ce monde. di gërëm bu baax internautes yi ñi nga xamante ne yéen ay suñu doole yéen ñi nga xamante ne su suñu jógee ngeen jóg yéen ñi nga xamante ne saa bu ñu jógee ngeen nañu ñu ñu ngi seen wet di ñu dooleel waaye jàpp leen ne lépp luñ fi daj rek yéen a ko waral jàpp leen ne yéen a tax ñuy xëy di dang-dangi suba ba ngoon lépp ngir satisfaire leen kon jaa jaajëfati yéen ñi nga xamante ne yéen ay suñu internaute rawatina yu 313 digital way leen kon di abonné di liker waaye itam di partager li nga xamante ne moo di lien yi bu ko defee ñëpp mën see jot ñëpp mën a dund ces beaux moments ñëpp mën a dund ces moments historiques ñëpp mën a dund li nga xamante ne moom moo nekk di xew en live and direct fii ci 313 digital. voilà cortège baa ngi noonu di avancer ndànk-ndànk voilà fii ça a déjà fait le plein xam ngeen ne leader yi génn nañu gàttandu ji ki nga xamante ne moom mooy di Ousmane Sonko comme ni ngeen ko gisee kii di capitaine Touré moom déjà rejoindre na li nga xamante ne moom mooy di le cortège waaye itam li nga xamante ne. Selon les informations qu'on a eues, Mamboy Diawitam, il a rejoint le cortège pour accueillir. En tout cas, on a eu ko mais pour l'instant, ñu jàppee noonu xëy na bu ñu demee ba ci foofee nga xamante ne moom moo di ca stade ba foofee nga xamante mooy fa ñu war amal lii di li nga xamante ne moom moo di meeting bi dingeen ci am lu la leer dinañ ci am lu ñu leer voilà en attendant on vous fait vivre cette belle ambiance on vous fait vivre cette belle mobilisation on vous fait vivre ces beaux moments ji kon ñu ngi fii ci hôtel de ville de Kolda fii lañu tollu jamono ji ci hôtel de ville bu Kolda kon si lañu nekk foofee la ñu toll cortège bi di dox askan wi di daw ànd ak moom di ko gunge ba nañu fa yéene yeggee foofee nga xamante ne moom mooy di ca stade municipal bu Kolda foofu nga xam ne foofu la ñuy amale lii di le grand rassemblement nga xam ne foofu la ñuy amale lii di le grand meeting déjà dans tous les côtés les populations sortent en masse dans tous les coins et les populations sortent en masse voilà. voilà. gis ngeen ko noonu c'est fort ces images. gis ngeen ko noonu